xool du tax ñële ñu baal leen lépp. mais dinañ leen xaw a comprendre pour mën doxal mbir bi. am ay circonstances am na loo xam ne bu ñu leen acharné woo contre ñoom. dafay tardé sama liggéey man. Mhm. man damay liggéey damay dem. Mhm. Sénégal dafa am fu mu toll y a des ressources qui viennent yu nga xam ne on doit gérer mhm. ñoom dinañ jël xaalis bi ngeen jël ku ko bëgg indi indi ko man dama sax yow. indil xaalis bi nga sàcc nga indi mën la investir ko. mais mais mais xaalis mais mais xaalis. mais Cheikh Ibrahima moom may bind naan xaalis bi nga xamante ne on parle de mille milliards quand même ñun man ñun ñi nga xamante ne ñun ñi nga xamante ne ja jamono jooju ndeysaan dañ doon taaba taaba sax dañoo daggoon ñu ñu amoon daañu dóor ñu dagg ko ñu dagg ko jox leen ko mais tamit xaalis boobu yépp tey dossier yi nga xamante ne jamono ji ñoo ngi fii leeragul enquête yaa ngi dox mais tamit côté boobu est-ce que ñi ñi ñi fi nekk bala ñu fiy jóge war ñoo gën a rafetal. zéro rafetal génn bi pour au moins. nu cité day nu cité day kubal wala ñoo ne enquête bi fii la toll. zéro da lay xam xaalis fa la dugg. zéro kañ la. dans février 2024 yow yaakaar nga fi. amul benn action buy aboutir. ah kañ moo ma posé. concernant rapport yooyu génn ci force Covid 19. yaakaar nga euh, dara xew fi ci scandale yi fi amoon yëpp si ginnaaw mais en douze ans si le président. si le ministre de la justice si le procureur ah ñooñu ñëpp kenn si ñoom deful dara ba léegi yaakaar nga ni li des ay ay ay ay cinq mois par exemple ñoom ñooy def dara bu ko yaakaar man li ma gëm mooy encore une fois. Mhm. dañu ne la loi est impersonnelle. elle est impartiale. loolu lañ wax. Mhm. et général mooy loi bi ñu indil mu jóge waaw d' accord mais léegi comme yàlla dafa dogal. ñun dañu doon xool yàlla dafa dogal. <laughs> loi boobu moo fi nekk gu. moo fi nekk de. jusqu' à ce qu' on change la loi. ñu am problème moo fi nekk. léegi mhm. comme que loolu moo fi nekk ki fi nekk mu ngi koy jëfandikoo. Mhm. faut pas aussi qu'on mâche les mots ku fi nekk mu ngi jëfandikoo li ko loi may ba sax weesu di def leneen naka naka loo xam ne loi may ko ko. tëj na fi Ousmane Sonko këram pendant cinquante cinq jours. amul benn. notification amul benn décision de justice bu bu firndeel loolu. Mhm. gis nañ ko fi donc man li ma gëm. Mhm. et puis man je vais mourir avec mes idées c' que kuy fi ku fi jiite réew mi nga def naka sudul noonu soo wàccee tu dois rendre compte su que tu es en tu dois rembourser tu rembourses si tu dois perdre des tu perds parce que après après boo doonee président bu wàcc dañuy ko ni di di la fay. Mhm. si tu dois parce que y' plusieurs <laughs> y' a plusieurs moyens de léegi nag les questions yoo xamante ni ça concerne la vie humaine nit ñi fi dee nit ñi fi daanu si ay manifestation que les responsabilités soient situées parce que famille yooyu noonu nga xamante ñàkk nañu seen i seen seen doom mm-hmm. ils ont le droit elles ont le droit de savoir mooy li tamit yegguñu sax ci manifestation politique mais quand même tu sais moi je t'explique une mm-hmm. man def naa neuf ans Kédougou mm-hmm. man ba may dégg Sabodala c'était du temps de Diouf mais saa waay Kédougou man maay dem Kédougou du ma réer j'ai quitté en 2005 Kédougou damay dem Kédougou du ma réer ça veut dire ce que ça veut changé wu du ma réer fi ma doon aw fa ma doon dem ca marché ba fa ma doon dem fa ma doon dem damay dem naturellement sans aucun problème Kédougou di génnee or Sabodala yàlla dogal am yeneen ni site yoo xamante ni gis nañ ko ay xosanto ay makko ay tomberon koto ñooñu ñëpp ñu gis ne ñooñu or mu ngi fay génn ñu koy utiliser ñooñu population yooyu di vivre dans la misère absolue mhm. yow nga bëgg loolu am ba pare nit ki toog fi def lu ko neex ba pare dem yoonam mhm. laisser cette population là dans la misère mhm. génne seen or bi dem jaayu ko après xamuñu fan la xaalis bi dugg loolu après c'est des choses moo tax ma ne la mhm. il faut de la transparence mhm. au-delà de ça mais il faut de la justice justice bi nag il faut ñu xam lan moo tax population yooyu noonu jotuñu ca lañ war a jot merci maintenant maintenant Fatou nga man aussi am na loo xam tamit il faut que ñu waxante ko tamit hmm. réew mi am na ñoo xam suñu suñu leen falee hmm. c'est certes bon qu'on nous rende compte ñuy auditer que ñuy xool hmm. sunu alal sunu koom-koom fi nga xam ne foofu lañ koy dugg ndax yoom naan du yoon mais aussi tamit ndax mbir mi suñ ci yoon su ci lalawee trop ndax du nekk fayantu da nga maa dóor démb tey damay fayu da nga maa ngàddoon damay fayu maa ngi dégg ak benn na bu ñu naan am na ñoo xamante ne moom sol bañ demoon ba nekk école Daniel Brodia ci Thiès lañ man day defoon tey day xaar man damay xaar ba màgg am am ndayo bëgg koo fayu mais loolu tamit suñ ci naree suñ ci naree dox tey maanaam ñi nga xamante ne dañ ne dañoo am gàllankoor démb jot nguur fayantu bi loolu suñ ci narewee est-ce que réew bi tamit dinañ dinañ danañ àgg fi ñu ko bëgg c'est pas parce que yoon daf ci lalu ba mu ëpp. mais nañ war a doxalee yoon lañ doxalul yoon. damay ñëwaat ci sànq euh, monsieur Birame Khoudialo fi mu commencé. Afrique loolu moo ñu del euh, tey peut-être am na ñoo xam ne ragal euh, li leen di fekk ci liñ def ëllëg. moo tax ñuy éterniser wu au pouvoir mais à ce du ñu mus a génn ci yenn situation yi. parce Gabon mi ngi ne euh, coup d'état ba fa am tey lecture bi ci nit ñi am wute na est-ce qu'on n'a pas ménagé une sortie à l'autre laa pour que mu mun a dem tranquillement ah, kan nga fi gis ci Afrique ñu topp ko pour malversation wala pour euh, euh, détournement amul dañuy génn ñu ménager leen des sorties tey euh, le président guinéen li ñu ko fi waxal yépp est-ce que gis nga ñu topp ko yaa a absolument rien su fekkente ni nag nit ñi dañuy def après on s'arrange non parce que c'est un président mmh. mais euh, ki nekk ci bopp bi euh, faw mu am responsabilité yoo xam ne daf koy assumer mm-hmm. euh, am na fi benn commissaire boo xam ne bi ñu toppee ñi nga xam ne ñoom ñoo defoon mbir 2011 mais commissaire boobu il a il pas été épargné te loolu daf ko topp ba yàkkal ko ay poste yoo xam ne waroon na ko am au niveau de l'ONU parce qu'il avait postulé mhm. c'est peut-être là l'intérêt entre guillemets mmh. des ak dénonciation yi nga xam ne dañ koy def mhm. au niveau des instances internationales mhm. foofu lay am parce que bëri na lu muy yàqal kilifa yi ñu yëg ko ak ñu bañ ko yëg maintenant pour revenir au Sénégal man je ne suis pas d'accord euh, quand on dit que peut-être justice bu laloo trop ci yenn yi daf ñuy tardeel il faut sanctionner il faut donner des exemples ba nga xam ne bu ëllëgee keneen dina ne ah lii kat ndekete dañ koy à ce sanctions gis nañ fii traque des biens ak acquis fan la mujjee. ñaata liste ñaata nit ñoo nekkoon ci liste bi ñu commis euh, procureur ndaw euh, li ma loon après nan la mujjee man bi ñu jëli Ousmane Ngom maa ngi buntu brigade des affaires générales bi ñu koy indi indi bu spectaculaire boobu ak ni ñu ko jëlijee mm-hmm. mais après fan la mujjee. moo ngi ci ginnaaw président ñaata nit lañ fi waxoon waaw loolu Omar Sarr la Omar Sarr la <laughs> Omar Sarr lañ fi defoon euh, interdiction ah, mais dama ne la ku mel ni Ousmane Ngom man loolu daf ma marqué waa waa bip ñoo ko jëli woon wan gisuñu seen kanam maa ngi buntu brigade des affaires générales palais de justice taxaw bip si wul de ma dañu def dañu dañu dañu kagule wu <laughs> indi ko indi bu spectaculaire mhm. nga ne ah suñu dëkk bi kat mi ngi su yoonu jëm eh. ci réduction des comptes mm-hmm. mais quelque mois lañ dawal Ousmane Ngom il est entré dans les rangs euh, de de l'APR de Benno après déggatoo loolu mm-hmm. donc doxaluñu yoon man je suis convaincu que jour bu ñu fi defee reddition des comptes normal def sanction normale mhm. euh, jour boobu la noppee am yenn cas yi président bu toog xam ne yow boo jógee di nga rendre compte comme ni ñu toppee woon Jacques Chirac comme ni ñu toppee woon Sarkozy mhm. comme ni ñu toppee woon keneen ak keneen su boobaa Jérôme dañuy dépasser yenn situation yi justice foog mu am justice mhm. c'est le dernier rempart <laughs> gis nga justice bu amul si réew Jérôme dara du kilifa boo mën a doon looy def nga di ko xalaat parce que à part la justice lan moo la mën a arrêté amul d'accord lan moo la mën a arrêté hmm. donc la justice elle doit être appliquée sinon tamit loi yi amul amul njëriñ amul sens pour que hmm. ñu di ko rédiger elle est impersonnelle elle doit être impartiale elle doit être générale hmm. mais su fekkee dafa am ñu muy dal seen kaw ak ñu mu dul dal seen kaw pour x raison ça marche pas du dem euh, bon li ñu ci doon ci waxtaan régie may leen ma cinq minutes rek ah maanaam ñaan jàpp si rek may ma cinq minutes ñu écoulé point parce que bu bëggoon naa quand ñu wax ci euh, comme que ngeen ne wax ngeen ne Ousmane Sonko day nekk candidat waxu plan B moom xam naa su ma ko feyee da ngeen may ngàdd mais gis nañ aussi ci euh, benn fissure bu xaw a am au sein de au sein parce que dafa mel sax ànd ànd ba tas na mm. léegi Ousmane Sonko day am